màggal ko ngir jaajëfal ko ci prix googu nga xam ne remporté na ko mu mel ni da lu njëkk ci doomi Afrique sow jant ñu am prix gi nu mel ndax defe naa benn nit ku ñuul sax ak mosoon a remporté en 1921 mu di René mara ci œuvre googu ñu tuddee euh, Batouala waaye yàlla dogal ñu teg ci ay fan mu mel ni carte gi dafa dëpp ñu jugee macha allah ba ci subhanallah ndax mu mel ni dañoo découvrir ni moom Mouhamed Mbougar dafa bokk ci ay lobby ba ci œuvre am gi mujj laataa muy bind la la plus secrète mémoire des hommes mi nga xamante ni moom moo remporté prix bi amoon na œuvre am mu tuddee de purs hommes mel ni daf ci doon défendre loo xam ne dafa bokk ci ay combat Mame Matar Gueye mu di xeexum ngóor jigéen balaa noo xuus ci njàngat gi ngay def ci livre bi naka nga yégee euh, information wu maanaam sargal goog ñu sargal euh, Mohamed Mbougar ci prix googu mu remporté. waa xam nga mag ñu baax ñi dañuy faral di jàngale nii asgor gor dafa war moytu dégg tëll rek ne damm na. Eh, Kocc Barma ne boo nee tekk tekk woon la yoon kon misaal yu bari na ba tax na ñun Jamra bi yàlla dogalee ñu sos ko ci mois de février 1983 ça fait fanweeri at ak juróom-ñett ren. kenn mësuñoo xamal dégg teel rek ne bërit wala dégg teel rek def loolu wolof di wax ma riirandoo tubaab di ko tuddee hurler avec les loups kenn mënul fexe ba jamra euh, di soppi lu day ni tarfatal ay ni ci ligne de conduite am boobu mu di lu xew rek ñun dañ koy taataan seet ko seetantel ko dooga yëkkati kàddu xam nga mosu déggoogu ñu ñu wax ci ba tey mm. voilà kon nag ñi nekk naan jam ra kenn déggu ko jaay ñaare day yu mel ni da daan wax waaye ñu ngi leen di gërëm ci kóolute gi waaye kenn mënul fexe ba ci kaw ma riirandoo jam ra jóg topp wi jaar gauche wala euh, ci ñiy félicité wala toppandiiraan wi jaar droite ci ñiy critiqué ndax euh, am na baat bu wax naan ku dee sa marché ba yaa tàgge sa bopp kon ku defar sa production littéraire yaa tàgge sa bopp foog nit ñi wax ci boo bañee nit ñi wax ci nag nga bën a bind euh, ba tax na production littéraire boo gis kan mooy destinataire bi c'est pas le grand public waaw ba pare nga ne grand public bu ñu wax tàccu leen rek kon que tubaab yi nee nañ lii baax na bu kenn ŋaang tàccu leen baa ngeen noppi fu ñu teg loolu parce que dafa am de soi-disant critiques littéraires intolérants yoo xam ne ci réseaux sociaux yi yëkkati nañ kàddu yu mel noonu naan waaw sénégalais dañuy soxor kii sargal nañ ko alors euh, dañ ko war a féliciter c'est bien waaye dinañ xam lañ ko sargale lan la amuñu droit xool ko xam nga coow lu mel ni moo fi amoon ci affaire école ñu gërëm ko euh, ne c'est très bien waaye ñu xool ba xam xaalis bi mu fiy dugal fu mu jóge ndax ña ko doon euh, défendre dañu naan waaw doomi réew mi la am na droit investir ci dëkkam waaw d'accord waaye doomi réew mi itam am nañu droit xam les centaines d'hectares yële ko état bi jox fële nga xam ne ça fait la moitié de la superficie de la ville de Guédiawaye ci ban titre lañ ko ko joxee ndax titre foncier la bàyyi la wala donc euh, euh, une autre forme d'attribution foncier am nañ droit xam ko ndax ñoo ko moom voilà noonu rek la mbir yi demee kenn mënul muus ba jëm def ma riirandoo alors euh, rawatina. démocratie moom la ñu yàlla wërsëgale ba dañ ko constitutionnaliser te principe bi ci gën a simple lan la dañu nekk la démocratie consacre la liberté d'expression qui donne à chaque citoyen le droit d'exprimer librement son opinion mais mais tout en reconnaissant aux autres le droit d'avoir un point de vue différent kon nag l'ère de la pensée unique et révolue bàyyi leen nit ñi ñu wax lañu xalaat alors waaye nag yàlla dafa dogal boo gisee suñu euh, addu ci mbir mi ànd ak tuuti nëgëndiku ñun dafa am principe bu ñuy doxee boo xam ne ñu ngi ko jële ci suñu wéeruwaay muy alxuraanul karim ak sunnatul nabawi yooyu mooy suñu constitution di suñu table de bord kenn mënuñ ci jëlee nag diine daf ñu jàngal ni wama shahib na ilaa bi ma alib na le croyant doit éviter de témoigner de ceux dont il n'est pas sur de science certaine voilà loola waral coow gonkuur bi am na yeneen i coow ci wàllu production littéraire yu ko fi jiitu suñu taxawaay ak suñu méthodologie mësul soppeeku euh, en 88 ñëpp gis nañu partenariat bi Jamra defoon ak rahmatullah alayhi sëñ Abdou Aziz Sy baax mu di bi fi livre bu bon boobu jibee suñu borom ne les versets coraniques saay-saay bi juutal ko nee les verse sataniques muy Salman Rushdie alors organisation islamique yu bari ñëw ñu def benn coalition def daje ñaari daje benn bu mag fii ci Zawiya Seydi Hadji Malick Sy rue Thiers angle Lamine beneen ba gën a mag nag foofa ca grande mosquée voilà ci la kilifa diine wax président la Abdou Diouf ne ko lii ëpp naa bàyyi ñu di ko fi jaay parce que tooñ la alors état bi daal di jël ay matuwaay interdire ko de vente sur l'étendue du territoire national loolu 88 la suñu démarche mosul changé ba ci 2014 bi ndem si yàlla si le professeur de lettres Oumar Sankhare génne woon fii téere boobu ñuy wax le Coran et la culture grecque di ay diingat kese libre na ci nag. waaye la liberté d'expression na donne à personne le droit d'insulter la fois des autres te moom loolu la def ndax dafa yëkkati lu mel ni euh, fatitul kitab def ay théorème dal di ne c'est d'inspiration grecque yàlla wàcce saaram jaarale ko fa mu koy jaarale ci jëmm ju tedd ja nga xam ne moom daf ko tappal ñeenti grade yu mag ne ko seydil na sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mooy ki njëkk mooy ki mujj mooy ki mujj xaatimu nabiyuna ba pare après yow de la après yow du ma wàcce kenn yaa nekk le sceau de la prophétie wa imaamul mursalin ñi jot a wàcce yépp yaay seen ilimaan mu jaarale ko ci kooku un écrivain jóg remettre ko en cause ne Faatiha bi c'est d'inspiration grecque est-ce que nekkul nga baal ma dogguma la li Victor Hugo le grand poète euh, français du 19e siècle doon wax ni en matière d'art il n'y a ni règle ni modèle est-ce que tamit Mame Matar du ñu nangul aux écrivains aux artistes cette liberté de penser les choses man de s'interroger maanaam sur la réalité des choses on peut s'interroger sur la réalité des choses c'est même à encourager mm -hmm. mais personne n'a le droit au nom de cette liberté d'expression d'insulter la foi des autres donc elle a des limites tekki loolu la def na gëstu gëstoom rek waaye bu mu jàpp jàpp une réalité pérenne boo xam ne mu nekk la référence de un milliard six cent millions de musulmans dans le monde nga ne faatiya bi grec yi ñoo ko tëgg tooñ la gëstul sa gëstu mais bul tooñ yamul ca loola nee na le voyage nocturne daf ko remettre en cause nee na gisu ko fen ci alxuraan. Isra wal Mi'raj. <laughs> or surat suratul Isra Isra. surat surat 17. xale xale mu ngoog xale yi nekk ci voyage nocturne yemul ca loola. en dehors de son ouvrage mu def ay interview gën a yokk karaw ci xar mi dal di nekk sëñ Abdoul Aziz Sy baax rahmatullah alayhi yal na yàlla yokk leeram moo ko mës wax ni hmm. Platon est un prophète loolu sëñ Abdou waxu ko ku alors tout ça conjugué avait fait que le pays était entré en ébullition këru diine yëpp jóg hmm. alors ci gàttal Jamra def na la mu ci war a def ba état bi jël mesure ñu arrêté vente bi pour des raisons de préservation de l'ordre public 2014 la mënuma citer dama ci citer bi ci mujj rek 2018 écrivaine boobu ñuy wax euh, Hela Wardi di tunisienne di wuyu woo ne jullit la dal di bind benn téere bu ñuy wax les derniers jours du prophète qui a été primé xamatuma ban prix prix euh, prix littéraire lañ ko jox et qui se comme des petits pains à travers le monde loolu daal di éveillé ay soupçons parce que nasaraan yi ñoo ko doon gën a jënd ndekete nasaraan li ci ëpp ci ñoom booy diingat sa bopp di tuutal sa bopp di toroxal sa bopp ak di xeex say valeur mais dañ lay yëkkati ba ca kaw loolu la ñuy def El Hawardi loolu daal di éveiller beaucoup de soupçons xam nga kan moo ma jëkkoo et je l'en remercie l'ancien premier ministre du mbay ne ma ah maxtaar xam nga yàlla dafa dogal su ma bàyyi Kéba mbay ci wàllu diine am na ci lu bari eh, mu ngi ko amee ci keppaaru sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh particulièrement cofeel ji mu amoon ci yonent bi su ma bàyyi Kéba mbay man Abdou mbay nag dafa ma wàll loolu moo tax fu ma gis un ouvrage buy wax waxi yonent bi ak fu ma mënti fekk en voyage à travers le monde su ma yoroon loo xam ne dafa yem juste si li ma war a añee war ko reeree wala war ko fay hôtel jaral na ma ma jënd ko ba pare deseeg yàlla nee na noonu laa def ba jënd livre Hela di le dernier jour du prophète plus de 300 pages nee ma waaye géy day aussi invraisemblable que cela puisse paraître mu ne ma dama ko liir vingt premières pages yi rek sama rongo ñi ne bàcc ma ne ko ah mu ne ma mosuma gis coxorte bu egg foofu nit ki mën nga bañ diineem gëmal ca la nga ne waaye yemoo ca loola nga ñëw fekk ko ca àndam ne ko danaa la won ne la nga nekk woo ci dara tooñ la la liberté d'expression encore une fois n'autorise personne d'insulter la fois des autres tooñ la alors ñun ñu daal di jëfee loolu ma la wax sànq rek wama shahibna ila bima alibna ne témoignez que de ce dont vous êtes sûr de sens certain ñu daal di tëju lire livre bi intégralement dal di am firnde ci li ñu Abdou Mbaye wax yëpp def suñu déclaration je résume euh, la fin d'après-midi le premier ministre qui était alors en fonction euh, Boun Abdallah Dionne woo ma je l'en remercie ne ma dégg naa seen déclaration le président Macky Sall moo yóbbante ci yéen waa Jamra ginnaaw déclaration bi ngeen def di alerter ci livre bii qui insulte la foi des musulmans président nga Casablanca parce que dafay noppaliku de de la fatigue du référendum parce que lii ma lay wax c'était en 2016 nee na ma jël contact ak yow mettre la en relation avec le ministre de tutelle Mbagnick ñaay ñu seet yan mesure la ñu def balaa yëf yi di ëpp loxo parce que du ma la nëbb ne y avait des extrémistes musulmans sénégalais yu doon harceler Jamra ñu wax leen ban librairie lañ koy jaay te la ñu naroon xam nga ko. dem xaalu fa taal ko rey ay nit kon nag état bi félicité ñu d'avoir joué ce rôle tampon pour que ñu mën a régler problème bi te débordement di am alors naka jekk le ministre de tutelle woo ma ci ndigalu premier ministre mu di Mbagnick Ndiaye nee ma maa ngi nii ak élagie euh, Hadji Cheikh Dramé le commissaire de la sûreté urbaine de l'époque alors dañu bëggoon nga jox ñu adresse su librairie yi koy jaay pour ñu mën a exécuter ndigal li ñuy jot ma jox ko quatre librairies yëpp euh, balaa ngoon ñoom ñu dem def toutes les saisies yóbbu ko jox ko premier ministre parce que effectivement kooku la mu bind non seulement sacrilège la blasphème la waaye tooñ la bari na euh, tooñ yi mu ci def benn laa la ci siteel bindal lu la neex mais bul sos diine ju fi ne depuis mille quatre cent ans nga bëgg ko réécriraat reformuler wa ko waat yaay kan parce que am na ay lobby franc yu la ngemba jox la xaalis nga ne danaa toroxal diine l'islam wane ne diine extrémiste la diine euh, nu mu tuddati d'intolérance la maanaam li diine woote yëpp ci wàllu lislaam mu wane safaan ba mu ne kii jullit yi di topp un milliard six cent millions de musulmans boo gisee ba mu génnee àdduna c'est Helawardi qui parle dans son livre dont je parle euh, le dernier jour du prophète boo gisee bi mu wuyjee boromam génn àdduna dencam yéex bay koor ba ñu bàyyi ko ci benn pantre mu commencé di décomposer ba kenn mënatul noyyi dans les alentours xoolal rek une méchanceté recherchée nee na dara warul ko c'est que dafa am ñaari kàngam ci saaba yi en l'occurrence Ababakar Sadiq ak euh, Omar bun Khattab ñoo doon xëccoo ndono li l'héritage spirituel du prophète nee na loolu tax talluñu woon suur prophète bi xoolal ma cette contre-vérité qu'elle est dans le monde à avoir écrit alors bref ak yeneen yoo xam ne teggin mayewul te mu teg ko ci kaw ngën ji mbindeef sala salaam ma di ko répété fii alors foofu tamit ñu def suñu war ñu alerte ndax dëkk bi jàmm moo fi xaj kenn amul droit di feewul yëkkati diine di ko dóor ci ci ci ci ci ci euh, ci ci ci beneen diine kenn amul droit itam jël diine jàmbur di ko doyadal kenn amul droit jàpp aw wasila jàmbur di ko toroxal di ko wàccee ak di ko dégradé kon nag ñun jàmm moo taxoon ñu def ko alors mu jegi état fekk si nañu mooy li ma la wax léegi El Hadj Cheikh Dramé le commissaire de la sûreté urbaine ginnaaw bi mu ci waxtaan ak Mbagnick Ndiaye ministre la culture ñu daal di saisir plus de 300 ouvrages ba livre bu bon boobu doon saaga yonent bi di le dernier jour du prophète de Hela war di kenn jaayu ko fen alors yëpp nag yooyu ma la cité boo gisee ma cité ko pour wax la que notre démarche n'a jamais changé et ne changera jamais mbir bu amee coow li ne kur divisé wu en deux camps c'est-à-dire mariirandoo yi ñi nga xam ne dañuy gëmm def di suivisme aveugle di félicité te la ngay félicité sax liiroo ko ak beneen camp wu ma riirandoo di dog di critiquer ak di ŋaññ te la ngay critiquer ka ŋaññ liiroo ko kenn mënul muus ba gis Jamra ci benn ci taxawaay yooyu c'est irresponsable alors loola waral nag bi coow lii ñëwee ci affaire Goncourt bi nous avons fait la même chose comme ni ñu ko defee depuis 88 nettali naa la ko Salman Rushdie 2014 professeur Oumar Sankhare et 2018 Hela Wardi mooy dañ ciy jënd ñett créer benn comité de lecture ku ne tëju nga yaa ngay lire bi nga sax pour que ñu programme émission bi boobu maa ngi nekkoon man itam ci sama côté di lire et c'est volumineux 392 pages donc presque 400 pages ça veut dire que duñ ko liirantu nekk ñu fi itam di ko liir en diagonale c'est irresponsable dañ koy liir crayon à la main comme ni euh, le président Léopold Sédar Senghor avait l'habitude de dire en parlant de le capital de de de, de Karl Marx alors ci loolu la ñu ne Euh, ngeen muñ tuuti am nañ yaakaar ne ci weekend bi bu ñu ko génnee dana fekk jambra ndar kepp mbir mi yëpp et incha allah en début de semaine jambra se fera entendre comme dans les autres cas xanaa boo nu ko may dig nu mosal tuuti rek donte lecture bi àggagul ndax li gën mooy ñu bàyyi ba nga noppi ca nga dog cee dikk def ci sa njàngat waaye ndax li nga tàmbalee liir gum ci livre bi ak li coow li di bëri maanaam ci waa ji eh, ndax fi mu ne nii mën na noo rafet njort nii gis nga ci li dal sa xel. waa xam nga déjà am na ñoo xam ne ñu ngi ci réseau sociaux yi di ut lay naan waaw affaire góor jigéen bi ñuy wax ne waa yee ko wax du ci ouvrage bii. Ah. Euh, bële la bi euh, de de purs hommes la. waaye du bii nga xam ne moom la ñuy primé ñun toppatoo ñu wax yooyu ñun dañu ne. Hmm. ñu gëstu waa ji lan moo waral tubaab yi yëkkati ko teg ko fa ñu ko teg gëstu tamit ouvrage am bii lan moo waral ñu daal di ko primé. alors que bañu ñu créer le prix Goncourt en 1903 ça fait combien cent cent combien cent cent dix huit ans ñaata kàngam ci wàllu production littéraire euh, euh, euh, en Afrique de noire au sud du Sahara ñoo fi dafiy jàlloore ana l'aventure ambiguë bu Cheikh Hamidou Kane yëngal adduna bi yëpp ndax qualité littéraire bi ak la teneur n'est-ce pas euh, du du contenu. une si longue lettre ana une si longue lettre de Ba. ana dégg nga euh, euh, Cheikh kii Amadou Ampate Ba. bari nañu kenn mënu leen lim ba ñu jeex. kon nag jàpp nañu ne cette surmédiatisation occidentale ci livre bi. du nen elle est elle est suspect elle est suspect. nous avons le droit de dire que c'est suspect. kenn mënul fexe nag ba yóbbu ñu ci ma riirandoo di critiquer wala ma di féliciter. te ndar pek képp gu ñu ouvrage bi kon ñu ngi koy liir te comme ni nga xamee Jamra du waxantu du ñu wax am moitié wala def des choses à moitié ñun bu ñuy dóor wala ñuy sargal nu sommes entiers voilà moo tax nag mu ñu leen tuuti certainement en début de semaine incha allah Jamra Safara en mel na ne nga baal ma sax tontu tontuwaale nga waa réseaux sociaux yi. bokk na ci yaa un jeune youtubeur la bi la doon raaye la. Ah. du nom de de Zal nee na. <laughs> waa Zal Zal Mame na wax ci nampal national bi. ñu ngi lay maa ngi lay gërëm. parce que yow nga tontul ñu Zal youtubeur. Zal tu es un moom mi doon xaar nga prononcé sur la question. parce que boo gisee Zal ma estimé ko. ak ki nga xam ne maa ngi yow. mës nañu mais kon la dara. li mu la def pas du tout ah, boo gisee boo gisee Zal ma ma admiré ko hmm. admiré tamit ñànku nga xam ne maa ngi yow mosoon nañ wax ay mbiram ci benn émission bi ñu def c'est parce que dañu nekk ay nit yoo xam ne hmm. may bi leen yàlla may mooy dañuy dañu mën a décompresser c'est-à-dire dañuy gis une situation sociale tendue ku nekk kii par parloo gi tar ñoom dañuy jékki-jékki rek jàllale benn production bu deux minutes trois minutes rek ñëpp féex loolu la Zal def kon nag Zal def nga ko avec beaucoup daar gis naa ne sax sama mbaxane bu ñuul bi sax xaw ma foo ko jëlee waaye moom nga sol ak ak xaftaan bi euh, rafetlu naa ko dayet jël naa ko sax def ko sama page Facebook pour wan la ni contrairement ak li nit ñi wax mais rewuma la ci au contraire dama la ci féliciter parce que yow indi nga sa concours indi nga tamit sa lecture si coow lii nga xam ne moo lëmbi réew mi ci wàllu prix Goncourt 2021 ndax loolu wanewul tamit ne Mame Matar ku askan wi bàyyee xel la trop sur certaines questions kon mel na ni sa combat bi tamit am na ñoo xam ne dem nañ ba léegi dañ lay xaar ci lépp lu jëm ci xeex ak sàmm ji yi waaw loolu nag euh, dafa am saaba bu ko mës laaj ne ko waaw yaa Seydi jullit bi bu defee effort bay sàmmoon te juróomi ponk yi muy shahadaat waxtu wi juróom woor weeru koor joxe azaka ak euh, dem baytilal xaram bu la ko sa santé ak sa euh, sa poos maye alors julli bi bu bu matale yooyu xanaa nag euh, wàccoona mu ne ko déedéet des na de mu ne aha mu ne waaw lii liy mottali seen njulit mooy ngeen fexe ba am ñetti benn ci ñetti taxawaay mooy loo leen gis muy raam jëm ci penc mi te nar a yàq jikko yi walla loo leen gis muy raam te nar a tilimal malaanu lislaam nee na waajib la c'est-à-dire amul woy je vais ou je pas voir maanaam obligation la pour que jullit bi jóg am ci benn ci ñetti taxawaay yi ñu ne ko ban mu ne d'abord na ci opposé wu ñu ne ko naka mu ne fi yadihi par l'action su jàppandiwul nee na fi lisaanihi nga wax nga dénoncé maanaam mooy li Jamra di def mooy li Sénégal di def di dénoncé yu bon yi yàq jikko yeeg euh, penc mi bu jàppandiwul nee na fi xal bi nga naqarlu ko sa xol ba suñu borom xam ne da nga néew doole rek waaye metti na la te nee na boobu c'est le dernier degré de la manifestation de votre fois en Dieu ndem si yàlla si nga ubbee sa waxtaan sànq di rahmatullah ali Abdoulatif Gueye moom d'ailleurs amoon na habitude ci conférence religieuse yi ñuy def par weeru koor euh, di café troisième posture boobu mu di fi xal bi nee na kooku normalement dañ ko war a bàyyeeg suñu maam yi màgget ba xubi nga xam ne amatuñu benn kàttan lu dul toog seen sajaada yore seen course di sot waaye ñun ñi nga xam ne dese nañu akas néew kàttan ñu mën di yéeg a ko wàcce di dem ak ñëw di xuloo ak di poñante nee na war dañu war di jëfee fi yaddi yi ak fi lisaan yi kon nag loolu nga wax loolu ci la Jamra ne ne nga combat yu bari bu amee lu taxaw eh, ñu ngi ci xaar Jamra du Jamra rek la war toujours da ngay gis ci réseaux sociaux yi njombe am ñu naan na Jamra jékki-jékki fóonantekat yooyu dem grand ay punkal di fóonante même bu ñu dul góor jigéen def nañ yëfu góor jigéen ñu naan ana Jamra jékki-jékki infidèle wane as ndaw buy futteeku di toroxal la femme sénégalaise parce que femme sénégalaise mooy sunu ñaareel waaw femme sénégalaise ñu jom ñu ne ana ana Jamra ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen alors euh, nit ñee koy tàmmee di waxee noonu rek waaye ni mu ñu ware noonu la leen ware waaye nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant tam ci confiance bi.